asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki jàkkaarloog nañ di seetaan eh, ci ndigalul sëriñ Abo xalifa Cheikh Mouhamadul Fadal yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. waaye ci eh, njiitul sëriñ maam Cheikh Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadal mooy yëgal mbooleem taalibe yi nga xam ne mooy seen jëwriñ ci kër sëñ Fallou eh, moo xam nag muy taalibe bu ne ci biir réew mi wala bu nekk bitim réew ne liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha woote muy liggéeyu université eh, bi nga xam ne moom la ñuy defal sëriñ ci Touba jot na ndigal ci jëwriñam mu jox ko aw sasam ngir mu mën a woo taalibe yëpp ak xarit yi ak soppe yi ak wëllër yi fu mën a ne ci biir réew mi wala bitim réew di leen xamal ne fas na yéene dajale moom li mu am di ci soññ boppam waaye di ci soññ waale mboolem taalibe yépp ne bëgg na bala ñoo àgg ci weeru rajab lépp lu mu dajale ca sasam woowee mu dem jébbal ko sëriñ Abo loolu nag sëriñ maam seex wax na ne bépp taalibe boo xam ne defal nga sëriñ loo man doo yem ak ku ko deful rawati nag ku defal sëriñ Touba loo ci ni ko Cheikh Abdoul Ahad waxe woon ne ku defal loo man mu fayal la loo mënut waaye ku ko defal loo mënut mu defal la la jomb sëriñ maam Cheikh nag nee na bu sañoon taalibe sëriñ Touba yépp kenn ku ci nekk am lu la jomb loolu moo tax nag liggéey bii mu di ci euh, soññi mboolem taalibe yi ginnaaw bu soññee boppam xamal leen ne lu lépp loo xam ne dajale na ko ca mbayam la koy tàmbalee ak lépp lu mu yor dana ko ci def lu ko ci waay joxe dana la ko ci defal euh, nee na nag mu ngi ciy soññi ñi ne ci biir réew mi ak bitim réew fu ab taalibe mën a ne di leen xamal ne it képp koo xam ne sab liggéey mat na wala nga bëgg ci ak leeral it mën ngaa jog jokkoo ak moom ci 77 632 91 71 wala nga jokkoo ak Serigne Cheikhouna Sankhé ci 76 683 10 48 wala sëriñ Abdou Diakhaté Ndiaye ci 76 520 14 74 sëriñ maam Cheikh daal nee na ndigal lii amul lenn lu ko gën a ñor ci moom fas na yéene lu mu am dana ko ci def lu ko waay joxe dana la ko ci defal gaal gaa ngi nag départ nag sëriñ Touba nag ku ko liggéeyal mu fay la te sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad noonu nag ku liggéeyal sëriñ Touba a fay te kenn na tabliwul ne Cheikh Mamadou Fadal moom kon mi ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal nag yàlla nañ ci daje ak tawféexi sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakaatu.